Rewmi 24 TV bismillah dal leen ak jàmm ci xibaar sëdi 15 février 2024 mu mel Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye xurum xaq ginnaaw ba ñu leen arrêté rek mu toll ci un an boo xamante ne rek ña nga woon prison ba ne ko tey jii bu ñu ci ah, maître Moussa Sarr ma ngay xam rek daal dinañuy am ap liberté provisoire mu toll ci un an boo xamante rek Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne arrêté woon nañ loon ko mu doon lu yàgg loo xamante ne ak léegi gi ñu bari ci askan bi ñangay sàkku rek ñu libéré waaye it mu mel ne yile détenu politique ñangay way di des ca prison ba ndax bu ñu xoolee rek daal dinay toll ci 2000 et quelques euh, prisonniers yoo xamante ne rek ña nga foofu ca liñ leen jàppee rek ñu bari ci askan bi ñi wax ne rek loolee du yoon kon daal tey jii fii ñuy wax ak yéen tombé ak 15 février 2024 Cheikhou Omar Diagne ak Abdou Karim gayi xurum xaq fii ñuy wax ak yéen ni am ab liberté provisoire tey jii tombé ak jeudi 15 février